asalaamaaleykum euh, cher internet tey ñu ngi toog ak ki nga xam ne moo di waajuru Siteu bu jigéen euh, ñu nekk nag ci préparation combat bi nga xam ne moo di diggante Papa Sow ak ki nga xam ne moo di sita yaay booy ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. yaay booy euh, nan ngay dundee làmb ji nga xam ne mi ngi dëgmal ci diggante Papa Sow ak kii di sita ah sant yàlla rek sant yàlla julli ci yonente bu tedd bi di sant àddina yëpp. waaw soo gisee tey euh, kii nga xam ne moo di Siteu di sa doom euh, di mbër di yëngu ci làmb loolu nan nga koy dundee. ah jàmm rek dunde jàmm rek sant yàlla rek ah, làmb moom fo la rek ñaar ñiy bëri ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp ndax duñu génn Sénégal te ñoom ñëpp ay doom lañu. ndeysaan moom sax bëggutoon a wax naam ci làmb ji ndax nee na moom dama leen ñaanal rek bëggul di génn waaye eh, ginnaaw ko ñun ñaan nañ ko ba mu def ko kon du ñuy wax ci làmb ji lu bëri dañ koy laaj ci wàllu social bi nga xam ne doomam ji di Siteu daf ciy yëngu lu bëree bëree bëri ba diggante kii nga xam ne moo di doomi ndeyam ji di Fodé bi mu làqoo gis nañ geste bi mu ci def tabaxal ko kër def yóbbu fa yaayi Fodé loolu bi nga ko yëgee moment nan la sa xol def ah loolu bi mu ko yëgee de dama sant yàlla rek ndax xam naa su li Siteu def rek lay def ndax ñoom ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp gannaaw yàlla daal ñoo bokk lépp de moom foo ko gisoon rek Siteu nga koy gis su ma waxee ne toogul ci yaa am lu bari sax loolu moom wax dëgg yàlla xanaa bi mu nekkee xale waaye bi mu demee ba nekk mag ba xàmmee càmmoñ ak ndeyjo ah ci Siteu rek la nekk kon nag kooku su la jiitoo dangay def loo mun waaw jàppale ko jàppale ay waajuram te Siteu boppam la jàppale sax waaw boppam la jàppale ndax mooy Fodé Fodé mooy moom waaw ci kontaan bu baax nag. soo gisee ni maar waxee nga xam ne eh, yaay ju baax mooy jur doom ju baax ndax tey amaana tey da ngay gis ay nit ñuy ànd sax waaye yaay ja day nekk sa diggante waaye soo xoolee suñu maman ji ni mu waxee diggante Fodé ak kontante la si am ak mbégte la si am Siteu social nan la ñëwee ci moom wàllum def lu baax soo gisee fan yi mi ngi jëndal xale ay moto di leen ko touché pour ñuy liggéey. ah loolu moom dafa nekk ci deretam Siteu li muy def dafa nekk ci deretam ndax dama doon wax ne papam su dul woon ay nit yi muy defal kon suy dee doomam bu nekk dina am héritage boo xam ne mën na kaa demee ndax. seen baay bu mu xàmmee ko ba sol mu waajuram mu jot ko ci liggéey la nekk ba dee waaw bon nag te lu mu liggéey dem bokk na kook doomu aadama yi bon nag su Siteu ñëwee mel noonu ah dañ ciy gën a sant yàlla rek xam ne yombul daal jaam boo xam ne dangay nekk ci àddina loo am bokk kook doomu aadama yi ah loolu ku ko yàlla defal dangay sant yàlla bu baax. ndax loolu mooy liggéey boo xam ne gannaaw julli ak juróomi ponk yàlla santaane gannaaw loolu loolu lu rëy la ci yàlla dimbale sa moroomi jullit jox nit mu lekk ba suur soo gisee koo xam ne mën nga kaa dimbale ci xel ci xalaat ci am-am nga defal ko ñun loolu lañu xam loolu mooy suñu deret loolu lañu xam te mënuñoo bu gis doomu aadama di sonn daal mënuñ koo gis kon nag soo amee loo ko dimbalee tuuti rek nga dimbale sa moroomu doomu aadama waaw kenn amul nag yàlla yor lépp képp koo xam ne itam jaam ji defal na ko rek yàllaa la yebal ak moom waaye du nekk dañ ko gën du nekk danga am lu mu amul ndénkaane rek waaw ndénkaane la xam ne loo yor rek ëllëgee dana de joge si sa loxo dem ci beneen loxo bon nag loo am rek dimbale ci njaboot ji ndax njaboot njabootu lépp la soo gisee benn mag xamal ne magu ñëpp la benn yaay yaay ñëpp la waaw ñun loolu la ñuy dund te loolu la ñu xam bon nag su ko Siteu defee loo xam ne mu ngi ci moom nar cee dëkk nag ba yàlla moom ko yàlla na yéex loolu nag te loolu laa koy ñaanal saa su nekk lii nga sumb bu ko bàyyi nga gis ma gisoo ma bu ko bàyyi waaw dëkk ci rek defaloo kenn sa bopp ngay defar ndax loo def tey yàlla fay la lu gën waaw. bi la Siteu jox la bee màkka bi loolu nan la def sa xol. ah sant yàlla rek ndax xam naa ni soo toogee ba nga dem uy ji woote yàlla bi ziyaare yonente bi loolu yëpp ci sant yàlla la bokk waaw da ngay yàlla rek di julli ci yonente bi mu bettoon ma lool nag. bettoon na ma torop torop torop torop ndax jour bi ma koy wax jour bi ma koy wax daf ma ko wax dem yaay de bëgg ngaa dem màkka ma ne ko bu ma fontoo waay waaw mu ree daal di dem ñu toogaat bi am ay jour bu ñëw yaay xam naa bëgg ngaa gis sa xarit de yonente bi ma ne ko si te maa bàyyi mu daal di jonkon téye ma ne ma yaay dama la yóbbu màkka mu ne ko ci kàttanu yàlla mu ne ma waaw mu ne ko alhamdulilah mu ne ko loo ma mos wax de def ko waaw bon nag mosoo ma ko wax bi nga ñëw di ma ko wax bon nag nga xam ne du dëgg la ci yow mu ne ma yaay bëggal rek fekk mu ngi liggéey kër Fodé bi ma ne ko est-ce que da ko attan bu li bugg ak leneen ak leneen ak li ngay def ci suuf dem màkk bi dina dina mën a dem mu ne ma yaay bëggal rek waaw bëgg boobu ci la sukkandiku. bi ma dem ci kàttanu yàlla dem dem bu sell ñàkkuma dara foofu itam jooyu ma dara ma ñëwaan mu teral ma wax dëgg yàlla macha allah. li nga wax ni sedd na xol te yaay ju ne bëggal na ko doomam waaye doom bi nga na ko waajuram wu jigéen euh, tey ji soo amoon loo xamante ni yaa ngi koy dénk si te rek lan nga koy dénk. yar rek na yaru te xàmmee doomu aadama. ndax lu nit am rek doomu aadamal moo la ko may kenn mayul boppam te doo fonkadi nit bi am leen yi ci fonk nit rek la leen la ngay ame yenn yi soo fonkee doomu aadama il faut yàlla fonk la ba jox la lim lay jox mais soo doyadalee doomu aadama yàlla doyadel la na fonk nit te di gën yaru saa su nekk waaw di xàmmee kii mag ki ak kii xale même xale sa danga koy jox cër xale bu ndaw koo jur sa danga koy jox cër ndax jur naa leen waaye man sa rus naa leen si gisa ba xool leen wala ma wax ma wax leen lu leen naqare waaw. yaay booy kontaan nañ trop si li nga xam ne moom nga ñu ko may euh, muy jël la interview waaye nag di la wax ne la dool leen ñaan rek yàlla baax na incha allah rabbi soo xoolee tamit lan ngay soññu xale yi nga xam ne ñoo ngi si buntu kër gi chaque jour ñu leen di wax waxu violence ak ñu demee noonu. dal rek ba démb rek maa ngi ko abu bu ñuy dem ma ne ko dal leen. ndax lu jàmm mayu nit rek ay du la ko may te lu nit di ut te jàmm nekku fa rek mën nga koo ñàkk bon nag nañu dal te xam ñooy ñan ah ñoom nag du ñu ay nitu fitna wax dëgg yàlla xanaa dañ leen ko adressé rek waaye amuñu fitna nit xale yu set xol ngi ni set nañu xol xam nañu itam fu ñu jëm waaw amuñu benn soxla ak nit xanaa ñenn ñooy ñëw di dugg rek di di leen di rax mais ñii nekk fii jàmm genn nekk xariti cité yi amuñu tàngaay de amuñu benn tàngaay te amuñu itam xol bu ñaaw pour defal def nit lu ñaaw bon nag euh, na nit ñi bàyyi li nga dul wax sa doomu sa doom bu ko wax doomu jàmbur ñëpp rek ay doom lañu foo tibbee sa doom rek xamal ne doomu jàmbur mu ngi ci wetam fa nga teg sa doom di ko fa xool xoolal doomu jàmbur bu jooju bi nga xam ne kooku du def lu ñaaw comme sa doom ni nga koy yéenee même suy def lu ñaaw da koy sàng sër bon na xam ne doomu jàmbur waroo ko wax loo xam ne dundu ko ñi dunduñu ko doxeewuñ ko waxeewuñ ko waaw yal na leen yàlla defal jàmm ndax fii ñuy toog fii la ñuy fanaan di fi yendu bàyyi seen kër yi si te génnu leen juddu génnu leen dara te ñu ngi fi toog ngir lan cofeel ak kóllëre nag man tam dama leen di ñaanal fi Siteu bëgg a àgg yal nañu àgg fu ko raw ci kàttanu yàlla dama leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm leeral seen yoon waaw leeral seen yoon dañuy julli di wóor di def li yàlla bëgg ndax looy jublu rek te boolewoo ci loolu loolu jiituwu ci jiituwu rek amaana yàlla du la fàtte la waaw mu nekkal rek mu nekkal la waaw yàlla ku ko nekkal mu nekkal la soo ko nekkal itam di lay bàyyi ngay baybal rek waaye am dina am benn jour danga nga da nga ko rëccu yal nañu yàlla defal jàmm bi ñu rëccu dara ci suñu dund ci kàttanu yàlla yéen itam yàlla defal leen jàmm ci li ngeen di dox yàlla yéegal leen ba ngeen kawee ci kàttanu yàlla baax yonente bi sallallahu alayhi